jërë ngeen jëf mbokk auditeur u Afia FM yi te ñu nag dikk ak yéen ci li nga xam ne moo di waxtaan bu ñel euh, projet bii di Cine Marena Euh, ñu fas yéene ci waxtaan nag ay série de questions yoo xam ne dinañ ci ànd ak suñu différents invités yi euh, tey nag ñu dalal am di Amdy Moustapha jong di facilitateur Cine Marena nekk aussi producteur audiovisuel Amdy maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay Fatou. maa ngi nuyu tamit euh, auditeurs u Afia FM yëpp. am di tey jii boo ñu doon wax euh, projet Cinémarena lan nga ñu ko mën a expliquer. Cinémarena benn campagne de sensibilisation la contre l'immigration irrégulière. bu ñuy wax immigration irrégulière lan la xel mën a jàpp. immigration irrégulière mooy ñi nga xamante ni dañuy jël yoonu tukki. di dem ci yeneen réew yu bokkut ak réew ba ñu dëkk. waaye di ko jaarale ci anam yoo xamante ni jaaduwul teguwul ci yoon ba pare itam ay yoon yu metti yoo xam dafa bëri ay danger ak ay risques yu mag a mag a mag donc bu ñuy wax immigration irrégulière noonu la maanaam ñi nga xam dañuy jóg di bëgg a tukki te dem ci yoon woo xamante ni teguwul ci yoon nekkul ci anam boo xamante ni euh, am na benn loi wala benn boo xam te ni tënk na ne daal mën nga am nga sañ-sañu jaar ci yoon bi pour dem tukki daal. Mm-hmm. tey ji bu ñuy ñëw ci li nga xam ne moo di objectifu euh, projet bi lan lañ ci mën a jàpp objectif bi daanaka mu ngi tàmbalee ci ay information ak sensibilisation maanaam euh, population bi ci li nga xamante ni moom mooy les les risques et les dangers de l'immigration irrégulière. risque danger bu ñu koy wax mooy kaawu barsaax barsaax waaw barsa wala waaye bii ba tey boo seetaanee li nga xamante ni ay film la yoo xam cinéma arena mu ngi ko doon utiliser di ci sensibiliser dina la laal lool sa xol ndax ay film la yu nga xamante ni da ngay gis réel danger lu ñuy wax danger immigration mu ngi ci biir ndax film la yoo xamante ni da ngay gis ay ndaw yoo xamante ni ñoom dañuy jël ay yoon yu mel ni ay désert dañuy dem ba ci biir désert bi seen ay oto paan oto yi leen waroon traversé oto bi mënatul dem ñu xiif mar rafle duñ amati yére buñ sol duñ amati luñ lekk duñ amati luñ naan ba ci ci désert bi foofu la ñuy mujjee ñenn ñi ñàkk seen bakkan ñenn ñi dañuy obligé dem nekk ay lu mel ni mën naa wax ne sax ay jaam la ñu mujjee doon ndax lu ñu mel ni ay pa li ñuy woowee ay passeur ñoom ñoo leen mujjee jël di leen utiliser di leen liggéeyloo di leen teg luy métti pour mën leen a jàllale donc danger yi bëri na bu dee ci wàllu géej bi tamit noonu la demee da ngay dem ba ci diggante bi gaal gi nga yoroon xar wala yu mel ne noonu parce que à chaque fois ñoom dañu nekk ay surnombre ci gaal yi ñuy nekk donc à chaque fois dañuy dem ba ci digg géej gi am problème duñ am ku leen dimbali ñenn mën nga am chance parfois croix rouge jaar fa wala yu noonu dimbali la mais ñi ci ëpp daal ñi ci ñàkk réussir ñoo mooy ñi nga xamante ni ñooy ëpp que ñi ciy génn. Mm-hmm. donc kon euh, forme d'immigration boobu ngeen bëgg a xeex moo tax ñu indil projet Ciné Marena bi. Euh, ngeen jot a jëf ay réalisation yoo xam ne amaana. jotoon waaw waaw waaw waaw loolu lañ bëgg a xeex ba tax Cinéma Arena depuis 2018 mu ngi sillonné les villages les plus isolés de l'Afrique de l'Ouest ba ci Sénégal fii nga xamante ni mën naa wax ne Cinéma Arena néew na village boo xamante ni euh, tegu fa tànkam. et en général c' les zones yi nga xamante ni mooy zones yi nga xamante ni euh, fa la immigration irrégulière bi ëppee les zones les plus touchées fa lañ ëpp lu nga xam fa la ñuy dem zone la par exemple foo xalaat ci Sénégal Kolda mun naa la wax ne la amul village parce que c' est des zones yoo xamante ni ils font partie des zones yi les plus touchées au l' irrégulière mu mel ni Kolda surtout dans le sud quoi carrément du Sénégal Sédhiou Vélingara Euh, Ziguinchor donc yooyu yëpp Cinéma Arena dem na si cest à les capitales régionales et les villages les les plus reculés mm-hmm. euh, de du Sénégal dem na foofu pour mën a mener campagne de sensibilisation boobu ci population yi fa nekk te campagne bi nekkoon na campagne bu am solo ndax li taxoon ma ne la am na solo mooy à chaque fois suñ ñëwee bu ñu tegee film yi nga xamante ni moom la ñuy sensibiliser euh, contre l'immigration irrégulière bu ñu paree dañuy def lu ñuy wax benn débat communautaire ak askan wi ñu fa fekki mais boo xoolee euh, waxtaan wi day day nekk lu am solo nax ñi nga xam te ne ay ay immigrants lañ de ñoom dañuy jël kàddu di wax. te bu ñu waxee li ñu leen njëkk a wax mooy ne que film bi ñu seetaan de liñ ci gis nii mooy li nga xam ni ñoom moom lañ dund. maanaam liñ fa dund ci mettit moom lañu lay wax seen yaay di leen wax ñoom li ñu def. lu ñu daj pour seen doom mën a tukki ñoom seen jëm bopp ñu ginnaaw bu ñu la waxee li nga xamante ni mooy seen métit bi nga xam dund nañ ko ci woon bi di la di la di la wan regret bu ñu am ci temps boobu ñu perte foofu noonu donc à chaque fois bu ñu fu ñu mujjalee seen ay wax nag mooy Euh, lan kan moo ñu mun a jàppale ba ñu mun a toog àggale suñu liggéey et tout ça mm-hmm. donc te loolu tamit yaakaar naa OIM mu ngi ci am def liggéey bu am amam solo mm-hmm. parce que euh, partenaire la aussi ak Cinéma na ci mm-hmm. projet bi nga xamante ni mooy la euh, campagne de sensibilisation bi donc OIM moom it mu ngi ciy xartànku tubéyam di gën a liggéey ak les migrants de retour waaw ñu bëree bëri pratiquement néew na ci Sénégal nga dem ci benn zone les migrants de retour xamuñu li nga xamante ni mooy OIM mais xool nañu ne euh, ci zone Thiaroye par exemple il fut des temps. Mhm. gisoon ne y avait beaucoup de jeunes yoo xam ne. doon waaw waaw Sélema Arena déjà bi muy démarré en 2018 première campagne am def na fi nga xamante ni moom mooy la les zone de Dakar ma Thiaroye bi ngay wax nii ak ay Hann Bel-Air toutes les les zones de Dakar yi nga xam te c'était juste des zones de départ. Mm-hmm. foofu bokk na ci zone yi nga xamante ni Sélema naa def na fa ay campagne de sensibilisation et mm-hmm. biñ fa dellu si waatee it tamit euh, liñ doon liñ doon seetu lu maanaam impact social bi am na fa parce que déjà nit ñi xam nañ ko. campagne bi xam nañ lan lan lañ fa doon wut si te jàpp nañ lañ doon wax ceeg yu mel noonu donc mooy woon rek ne la euh, li nga xamante ni moo ñu taxoon a jóg ci jamono jooju atteindre woon nañ ko mm-hmm. euh, yow producteur nga euh, audiovisuel mm-hmm. est jot nga def ay réalisation dem filmer au-delà de témoignages yi mais dem ci zone yi nga xam peut-être. je n'ai jamais produit benn film boo xamante ni ci immigration irrégulière lay wax waaye jàppale naa ay nit ñu def seen ay film ci ci ci sujet yu mel noonu donc maanaam euh, da ngay am sa projet bu mel noonu nga dem def sa tournage ba pare. mën nga ñàkk ay moyens yi nga xamante ni moom ngay defee li ñu wooyee la post-production d'un film donc nga ñëw certainement en tant que producteur ñu jàppale la pour que film boobu noonu mën a mën a juddu donc mën naa ci citer euh, le retour bu nga xamante ni benn xale jeune cinéaste moo ko def bu tudd Djibril Diop euh, kooku filmam da ko accès woon ci immigrant bi nga xamante ni dafa ñibbisi si Sénégal donc kooku ko mu def li nga xamante ni mooy mooy post production filmam je pense que c'est un film boo xamante ni jot na am ay prix et jot na dem aussi des festivals de yi nga xamante ni si immigration lay lay lay lay lay lay lay yëngu daal uh-huh. tey jii euh, réalisation yi nga xam ne jot nañ ko def si à travers des yi nga xam cinéma naa mu ko doon doon euh, mm-hmm. euh, lan moo ci gën a ressortir surtout aspect danger bi nga xam ne. yaa ngi wax ne moom lañ ci gën a fësal. waaw li ci gën a ressorti mooy ñi nga xamante ni ay migrants lañ de retour. bu ñu seetaanee film bi à l'unanimité nag des villages qu'on fait ñoom ñëpp ku ci nekk boo seetaanee film bi da nga confirmer da nga dëggal ne li am si film mooy li nga xamante ni moo mooy réalité wu bi am si terrain bi. c'est mm-hmm. parce que ñoom ñëpp dund nañ. pratiquement presque lu mel noonu li nga xamante ni moom la film yi euh, cinéma naa doon euh, doon teg pour mën a sensibiliser population yi. Mm-hmm. tax jeunes yi di parfois aussi euh, ñoom ñu si bëri dañ jàpp ne dem xooli ji foofu. dañ kumpa man mun naa wax ne moo leen gën a moo leen gën a sonal mais euh, mun naa mun naa ne euh, li xew bitim réew jamono ji ak ak li ak ak li am un peu partout euh, en wala feneen ci àdduna benn la rek daal. lan jàpp ne moom mooy cause bi tax jeunes yi di braver les interdits di di ñuy wax immigration. li tax parce que man mën naa mën naa la wax ne la jàpp naa ne li ci ëpp dañ kumpa la ndax pour ñoom li am bitim réew. nekk na loo xamante ni boo fa xasee teg sa tànk rek da ngay tekki ba faaw alors que demeewul noonu foofu nit nekk na fa sonn trop trop trop trop euh, nit nekk na ci dëkkam gëm boppam xar tànk tubéyam ci ci ci ci ci liggéeyam am tekki ci donc man li ma jàpp ne li ci ëpp mooy dañ dañ kumpa rek mais ñi ci dem ba ñëw koo ci dégg mu naan ah li am folekat daanaka ak fii benn la rek liggéey rek moom mooy tax peut-être que nag mun naa wax ne les ah, xaalis yi bokkuñu bokkuñu mais les charges fixes lay fekk foofu noonu charges yi am foofu daanaka loolu liggéey da nga koy dépassé waat foofu alors que fii peut-être que les charges fixes sont moins chères qu'en donc pour man jàpp naa ne ñàkk xam exactement ak ñàkk peser les pour et les mooy waral ñu ci bëri di tëb tëb di à l'aveugle di dem moo immigration nag nekkut loo xamante ni euh, man sama jëm bopp dama diw bul dem bul dem mais booy dem fexeel ba nga dem ci anam yu leer yu wóor nga jaar ci yoon bu wóor yoor bu baax te boo boo bala ngay demit nga waajal sa bopp parce que lépp mun nañ ko préparer depuis ici correspondance la rek mu leer na la boo àggee am nga ci loxo yooyu nekk loxo yooyu mun nañ la jàppale ba nga atteindre te sa sa objectif mm-hmm. mais tëb tëb xamoo fa nga jëm xamoo yoon bi ngay jaar xamoo lan nga fay fekk nga bëgg a tëb tëb dem dem tamit loolu day day day métti. surtout jaar ci désert bi. jaar ci désert bi jaar ci ndox bi te c'est des dangers yoo xamante ni euh, cinéma Arena da ci accentué du bu baax a baax a baax a baax ndax boo xoolee tous les films yi nga xamante ni moom la ñuy projeté benn bi c'est c'est c'est des dangers sur euh, sur ci désert bi beneen c'est les dangers sur sur la mer. jaar mais boo gisee euh, les images yow mi nga fekkewul sax da ngay da ngay yéemu ndax ay c'est des gens yoo xamante ni tey jii suñ leen sauvé wul woon duñ duñ leen mësax a gis a tegati bët parce que en pleine maire la ñuy nekk di jaaxle xamultuñ fu ñu jëm ndax surcharge nañ bat gaal bi ñu yoroon gaal bi commencé na sol ndox te ñu ci bëri xamuñu mm-hmm. ndox bépp xamuñu ndox parce que mm-hmm. c'est des subsahariens mm-hmm. mm. defe naa ne tax na euh, Cinémarena di def ay série de sensibilisation pour mën a. Euh, et cette année avec l'histoire du Covid donc Cinéma Arena a adopté une autre forme de sensibilisation mm-hmm. boo xamante ni jàpp nañ ne dina dal dina egg fi nga xamante ni mm-hmm. foofu lañ koy yaakaaree mooy mooy déjà tey ce qu'on est en de faire mm-hmm. des émissions de radio des des vidéos yoo xamante ni on va faire des sensibilisations sur les réseaux sociaux fexe ba nit ñi xam les dangers et les risques yi nekk ci ci l'immigration irrégulière parce ñu seetaanee film bi wala bu ñu gisee les images ce qui se passe réellement dañ ne ah ah man kat nit mënu ko seetaan ba pare am ñoo xamante ni dund nañ ko ñëw taxaw sans euh, témoigner ne lii ak lii moo fa am mu wóona lii moo fa am yow nga ngay jël risque di ko embrasser loolu moom euh, amul amul amul amul fenn euh, Amdy Moustapha xanaa ñu bàyyi la rek nga jox message bi nga xam ne moom ngay passer aux jeunes waaw li may wax rek mooy ni que les jeunes yi nga xamante ni ñoom la immigration yi gën a concerné ñu bàyyiwaat xel bu baax a baax ci li ñuy def parce que yoon la boo xamante ni métti na métti bi foo ko takk weesu na lu ne xaj na fa te fi jamono toll actuellement nga xamante ni on est dans une monde planétaire li xew France wala li xew itali wala li xew feneen ak feneen tey tey tey Sénégal da koy xam te ñun ñëpp umpale wuñ na tey Euh, dëkk yooyu yëpp ay dëkk la yoo xamante ni neexatul na mu neexe bu njëkk donc nañ bàyyi xel ci suñu dëkk te gëm naa ne suñu dëkk bi nga xamante ni moom lañ moomal suñu bopp suñ ci liggéeyee na mu waree def ci la ca lépp la ñuy di génn dem di ko di ko jéegaani mun nañ ko am fii donc maa ngi euh, waxaat toutes les jeunes euh, sénégalais ou les jeunes africains de soi et ne fi nga xamante ni mooy di Afrique potentiel bi ñu am Euh, les pays européens ou les pays maghrébiens wala beneen bu dëkk bu mu mëntu doon amuñu ko donc mais c'est à nous en tant que jeunes sénégalais de travailler pour que euh, ñun ñu ñu mën ñu mën a tolloo ak ñoom wala ñu raw leen mais bañ a tëb tëb rek xalaat tukki rek daal ci euh, engagé wu pour man daal vraiment bala ñuy xalaat waxi tukki nañu xool ba d'abord lan lañ mën a def fii ba pare soog cee gi am na solo am di Moustapha ñu lay jaajëfal ci disponibilité bi di fàttali ne euh, Amdy Moustapha euh, jong lañ dalaloon tey di facilitateur na nekk producteur audiovisuel ñu doon waxtaanee li nga xam ne moo di projet bi di na euh, ñu ci lëkkaloo ak OIM ak rajo communautaire ngir ñu ñaax li nga xam ne ñoo di jeunes yi pour ñu moytu li nga xam ne moo di Euh, immigration irrégulière te xam ne euh, tukki dafa war a jaar ci yoon di leen dig dajee ci yeneen jëmmi jamono ak beneen invité jaa ngeen jëf di fàttali ne soxna maam Kumba Diagne Touré moo nekkoon ci wàllu xarale